sama xel sëf ma ci doj génne ma sama biir kër maag sama njaboot takkale maag sama famille lu ma gode gode ci mbedd mi laay fanaane ci yàlla waaye wàatal sa xel ci yàlla te xam ne ëllëg yamal xiyaam jëf ju baax rek tax nga jàll yëngu ma liggéey ba ma dox toog sa biir kër ut sa njaboot te doo dox ba xoof maa ngi nii torox def la ay mbokk ndax feebaru xel bi ma yàlla teg tax ñu beddi ma génne ma seen ma nekk ci mbedd mi di dox yeneen allée yow li yaa ma ko teg maa ngi nii xam ne tuma lu nëbbaralu fax jëf ju bon yàq doomu jàmbur ba noppi di wër ci continent doon tux boon seytaane mi leen jay ba tax ngeen sëb ma ci doj bu ëllëgee dina leen fa tey leen a mëy bàyyi leen a seen bopp xam ngeen sax li leen fay xaar kon jarul listaxaar bàmmeel buy tàkk bay saxaar gisuma lu ko fi jar fii ci dunyaa du alal du kër du tax nga war a mën a tayle sa Nan you on that gum gum gum gum Ba aga fan you jam jam Tar life lum tak nga braay sa gon Gëmal li say non, xol ci say dom, fexe dundee sa nyak ñàkk bum la ñànkiloo ëllëg di doni mak mag gëm ba aga fa jam jëm gëm tak nyu sopi sunu life jàpp banyak bay bàyyi gëm ni bés dina baaxi gëm li ñu topp yoon bi di dem gëm gëm tax tey ñuy dundu leneen gëm gëm tax duñu fàtte fi ñu jaar li des ci sunu life ñun duñu toog di xaar gëm li ñu gëm dem dóori war, xool ci sunuy noon def li ñu war eskiw yenn yoon yi xoolaat fi ñuy jaar gëm gëm tax duñu rëccu lu ñu weesu aduna dañoo nandal li ñu weesu dañoo jàngal life jàngalaat la jàngalaat la dunia xalaat la xalaat la Net kone, nigga itu udah sampai mampu life Jangan laste, jangan laste Dunia kalaste Kaya ya, kaya ya, ilinyi Kolaste, kolaste Net kone, li ngëm ngëm tax moo jubale makatu kolobaan takkale sama balu yére toog di ko jaay ngëm ngëm tax ma bàyyi kepp maan amu may def ma dooni maket maan ngëm ngëm tax ma mokkal sama métier liggéey fayeeku muy sama mbégte ngëm ngëm tax ma taylee sama bakkan xuus dugg ci géej gi jàll biir Espagne ngëm ngëm tax ma kàttu sama pus pus di ko pus si naaj bi tànge man la baara ñinde gëm li ñu gëm la muy jar koy teg soxlu laax bi jeng jeng du ñu tax a weng ngëm ngëm tax ñu takk laxasaay joxe suñu ruu sax si jaamu yàlla yoon wi taroon lool waaye dañoo xuus jàll gëm la ñu gëm la dëkk ba ñu jëm la. laay jàngalaat la la dunia xalaat la xëy la ñuy la xoolaat la la jàngalaat la liggi xolaat la xolaat la nit ku ne li nga dunde sa biir dund nekki sa wërsëg boo xamoon fa mu nekk di nga daaw yow sa baare waaye dara xëyul sotti bur yàlla moo ko naam nekki war fexe tey samedi xëyaat fi dimanche ba suba ci ngoon ñu door a delluwaat ndakaaru ni nu fi war a liggéeye népp xam naa tey di ngeen ko dégg mu aju ci ñi nga xamante ne ñoom lañ fekk si fii ci mbuur wala ànd ak ñoom ci liggéey bi di nuyu ñi nga xamante ne ñoo jugee fu sori ngir ñëw ci liggéey bi bu jiitoo ñi jugee Dakar nekk ay membre yoo xamante ni saa bu bi wootee ñu jóg ñuy nuyu Baye Abdourahmane Lax mi nga xamante ne damay dégg ci kàddu yu Baye Sawru mu ne saa bu ma ko gisee daf may yokkaat jom yokkaat ma pas-pas ndax fan lay jógee Casamance démb ci guddi bi ñëwee fii lañ ko fekk ci mbuur te ñun Dakar lañ jógee kon kooku kum soñu dara dootu la soñu yaa faama cuun ànd ak xaadim ànd ak euh, ñoom Umu Kanté jógee moom it ba Kaolack ñëw ci descente bi ñooñu buñ taseeg ñoom ci descente ñun ñu jógee dakaar ñoom dañ ñuy gën a yokk courage pour ñu gën a mën a liggéey bu ko defee balaa kàddu yee gën a gudd te nu war a jëm ci liggéey bi dañuy woo ñi nga xamante ne yàlla def na ñoom ñoo féete fii ci mbuur fas yéene liggéey